yokk fee yi nga xam ne wër na ak ngóor jigéen ndax dafa am yun dugalul woon yooyu nekk na loo xam ne ci pénc mi def na coow loo xam ne mu ngi bëgg a jëm weer lan moo waral loolu ak nguur jigéen ñépp xam nañ ne du lu baax ñépp xam nañ ne du lu baax sunu boroom moo waxoon na xawmu lóot nitu yontu yàlla lóot ne yéeni ngi dikkee ci pénc mi ak ñaawteef atatuuna alfaxishata maa sabaqakum biha min ahadin min alaalamin sunu borom ne nitu yontu yàlla lóot wi ay yéen de yéeni ngi dikkee ci pénc mi ak ñaawteef goo xam ni mbooleem lu yàlla bind yéen a ko initié yéen a njëkk a def mbon gu mel nii caay-caay gu mel nii muy góor ak góor yu ànd di sëy muy lu doy waar bi leen sunu boroom artoo ci làmmiñu yont yàlla loot dégguñu ñu dëgër bopp lañu nag lool foog nit ñi xam ko gis nga góor jigéen ñu dëgër bopp lañu ñu dëgër dëgër dëgër bopp génne leen ci li ñu nekk lu jafe la ñoog faramason ñoo yam yonent yàlla loot bi mu insister ci woote bi wan leen ni lii ñuy def ak mbon la atatuuna rijaala shahwatan min duni nisa lu ne ñu waxee leen ko ndax da ngeen a bëgg sëy ak góor ñi bàyyi fi jigéen waaye terewul nu continuer ca la ñu ne woon sunu boroom indi mbugalam ci seen kaw wa amtarna alayhim xijaaratan min sijilin mandudin musawamatin inda rabbik waaw wa ma hiya min alzalimina bi baid sunu borom nee na ma taw ay xeer ci seen kaw téere yi ne nañu yàlla dafa yebal jibril alayhi mu samp dëkk bi ci suuf fi dëkk bi yam jam suuf dugg yëkkati dëkk ba ba ci kaw dëpp leen ci suuf dëpp leen taw ay xeer ci seen kaw ñoom ñëpp ñu dee ba jeex alkande googu sunu borom bi mu noppee moom la jeexalee aaya bi dani wa ma hiya min alzalimina bi baid nee na li ma nit ñooñu le mi ngi fi soriwul mbugal mi yàlla dumaa woon nitu yonti yàlla lot sunu borom nee na soriwul mbugal ma mi ngi fi wa ma hiya min alzalimina bi baidin ku def la ñooña defoon ñu def la nañu defoon ñooñ même su dee ñun am nañu garanti nekk xeetu yonti yàlla muhammad sallallahu sallam lu bare ci ni yàlla daan mbugalee xeet yu njëkk yi ñun daf ñu ko teggil waaye terewul mi ngi ñu koy teg ci beneen sens cheikh umar fouti radiallahu anhu wax na ko mujahidul akbar nee na dëgg la de yàlla daan na soppi aw nit ay golo ci ay jamono yàlla daan na soppi aw nit ay mbaam xuux ci ay jamono xeetu yonent nag yàlla defu leen lool mu ne waaye am na lu gën a garaaw mu ne yàlla du soppi seen jëmm ñu nekk mbaam xuux mais jikko ji la leen di defal nga yor jikkooy golo golo la ku yor jikkoy golo golo la ki def jëf ju ñaaw ñu waroon ko soppi na nu soppe woon xeet yenu daan soppee mbaam xuux soppi wunu jëmm ji mbaam xuux mais mu yor jikkoy mbaam xuux du seexlu dara kon Cheikh Umar radiallahu anhu almujahidul akbar loolu mu wax lu wér la nee na sanction bi dalul ci jëmm yi mais dal na ci jikko yi te loolu musiba la loolu moo tax ànd sàmm jikko yi ne lii ñu gis ñuy raam mu nekk benn agenda dugg ci loxo état yi ñu ciy dooleel ak ngóor jigéen muy LGBT LGBT ñi xam li xew ñépp xam nañ ne lu bare ci puissance mondiaux yi dañu leen a teg loxo di leen jàppale di leen financer di leen utal ay alal di di di leen promouvoir li ñu nekk mais loolu nëbbuwul loolu ñëpp xam nañ ko mais loolu dafa raam ba dugg senegal loolu kenn mënu ko dindi agenda boobu nag lan lañ ciy def ñoom ni ñuy boddee góor jigéen ci pénc mi parce que ñun tamit fii suñu pénc dañoo am ay réalité gis nga fii Sénégal même nit ko xaw a efféminé sax